naa ko delloo ci askan wi mooy xaaj naa ko ñett lii ma def ko ci pouponnière bi nekk Kaolack lii ma delloo ko ci jigéen ñi nga xam ne ñi ngi Casamance di liggéey ci transformation la ca des ma xool nu ma koy jëflanteeg ñi ma bokkal ci action politique. parce que sama action politique du lu may séenu ci gannaaw ci payoor wala ci ñu demee noonu su dee loolu am naa sama métier am naa sama profession maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla maa ngi ci yenn ak yeneen jëluma sama lépp tënk ko ci politique ba su ma nee damaa bugg a nekk président wala dama bëgg a nekk député salaire ba ak kat-kat ba ak carburant ba comme niñ ko gisee ci yenn politiciens yi mooy mooy tax déedéet yéene gi ñu am ci réew mi moo tax kon loolu yëpp ñu ngi dellu sant yàlla te jàpp ni lu ñu lu ñu gën a dëgëral la lu ñu renforcer la waaye wàññiwul mooy ci wàllu pétrole daanaka dama ne woon sax man li ma ci war a wax naa ko ba noppi loo wax a wax euh, bind ci ab téere boo xam ne def na deux cent cinquante deux pages teg ko te ba tey amagul lenn loo xam ne ñoom ñi mën na ci dindi benn virgule wala lu ñu mën a conse contester ci accusation yi ma fa def teg ko ci ndodd Macky Sall ci boppam ci Aly Ngouille Ndiaye ci euh, euh, Amadou Ba ci euh, Franck Timis ak ci Aliou Sall duñ ci mën a jël ba ne lii diffamation la ñoo ngi dem tribunal kon kooku la jàpp mooy li ci bind mooy dëgg jusqu'à ce ñoom ñu mun koo génne moo xam dindi nañu téere bu wane ni li wala ñu accepter débat contradictoire boo xam ne ñoom ñoo ñu ngànkoon mbir mi ñoo ñëw toog man ñu débat wala ñu ne wax na du dul wala teg suñu kaw du ñoo ngi dem tribunal te benn ci loolu amagul kon li ma jàpp man te askan war koo jàpp mooy li ma bind ci téere boobu mooy dëgg téere boobu dafa tënk lu bëri c'est vrai que téere bi bi ñu koy bind contrat total bi amagul woon contrat total bi dama génne téere ba pare mu doog am waaye contrat Petro-Tim ak li ci xew ci gannaaw bi diggante Petro-Tim Timis Cosmos ak dossier bu mel ni Ovidiu Tender ak gazu Kajaga bi nga xam ne moom la euh, américain fortesa di bi li ma ci bëgg a wax ci gàttal mooy la gestion ni ñuy ni ñuy ni ñuy yore suñu alal ci réew mi yemul ci pétrole bi rek mu nga ci or mu nga ci zircon bi mu nga ci Euh, ressource naturelle mi ngi ci géej gi suñu jën yeeg nangu niñ ko yoree catastrophe la c'est-à-dire banditisme d'état moo am te régime Macky Sall daf ko aggravé la ñuy def yëpp dañ koy def ci en violation ci jalgati yoon ni mu tëree mbirum pétrole dafa am cadre bu ko tracé gis nga foo dégg ñu wax mbirum pétrole ñu naan c'est lu technique la nit ñi waruñu cee wax xamal ni tappale ñëw na parce que lu Sénégal yëpp moom te ñun ñëpp ñu bokk jàng ñu ne waroo mun a jël loo xam ne code la pétrole code la code pétrolier code nag droit lay wax waxuñu waxuñu ci wàllu géologie naan ay ga man maa dem gasi gis naa pétrole bi nangam nangami mètre cube euh, nangami euh, kii la ci ci quantité ak euh, ak qualité bi qualité ning loolu moom nañ ko bàyyi ak waaye li ñu ëppal solo mooy gannaaw bu ñu nee am nañu pétrole dafa am benn code mooy benn charte benn benn benn téere boo xam ne moo ne géej bu ñu gisee pétrole wala ñu gis zircon wala ñu gis or wala ñu gis lii lii nii lañ ko war a doxale kon suñuy natt est-ce que ni ñu yoree pétrole bi baax na am déet du lu ñuy wax rek ci kaw dañuy dellu ci téere boobu suñu nee Macky Sall si na décret est-ce que décret boobu respecté na code bi est-ce que moom Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne moo def rapport de présentation bi li mu ci wax respecté na code bi est-ce que société bi ñu ko jox remplir na critères yi nga xam ne moom la code bi wax muy ñaari type de critères mooy critère offre technique mooy société bi est-ce que am na capacité technique yi est-ce que xàmmee nañ ko ci loolu est-ce que mës na ko def fan la ko def ñaareel bi mooy offre financière parce que pétrole du mbirum baadoola ngeen jéggal ma ci terme pétrole du 1000 francs koy def du 1 million koy def xaalis bu bëree bëri koy def donc su dee loolu yëpp natt nañ ko jël nañu contrat yi te yàlla def na jot nañu contrat yi nag ba mu des si ñu làqagum comme bu pétrole bu bu total bi nga xam ne keroog ministre bi ñëw na assemblée ma ne ko ana contrat pétrole total bi li tax di ngeen ko publier parce que kon pétrolier moo leen ne lépp lu ñu xaatim ci wàllu pétrole da ngeen ko war a publier au journal officiel muy contrat muy décret muy arrêté ba léegi ñu ngi ci toog mu ne ma ñëwal sama bureau ñu wax ci ma ko du ma ñëw sa bureau parce que yoon moo la tënk ne da ko war a loo koy tëdd loo koy téye tëdd ci te moom moo ko sénégalais ko moom mais contrat yi ñu jot a am bu mel ni bu Petro-Tim bu mel ni bu Ovidi tender ci ci Casamance ak Saloum ak yeneen ak yeneen biñ ko jëlee ñun gam-gamle ko comparé ko ak lii nekk ci code pétrolier bi gis nañ ci. bu rëy rëy ci ay jalgati yoo xam ne weesuwul moom Aly Ngouille Ndiaye surtout moom principalement moom Aly Ngouille Ndiaye waaye su dee Macky Sall yéegoon na ko parce que moom moo def rapport de présentation yi ça veut dire que egg na ci Macky Sall su ko yéegul it waaye am bind naa ci téere bi ay firnde yu wane ni yéegoon na ko parce que soo toppee waxam diggante li mu wax Paris li mu wax ndakaaru li mu wax feneen di nga xam ne kii yéegoon na ko ak rakk ji ni ci duggee ak yeneen ak yeneen ñun jot nañoo génne foofu ni jalgat yu rëy rëy rëy am na ci ci ci ci ni ñu joxee suñu pétrole benn jox nañ ko ci ay sociétés yoo xam ne ay saay-saay a ko yor ñenn ñi li tubaab naan ay repris de justice lañu mooy condamné nañ leen fii ak fii Frank Timis foofu condamné nañ ko fu bëree bari ci àdduna Ovidi Tender mi ngi doon purger une peine bi ñu koy jox suñu suñu pétrole ñu ngi ko tëj fi mu dëkk moom Bulgarie jàpp ko nga jël ñooñu jox leen suñu pétrole jox nañ koy société yoo xam ne amul benn offre technique ak offre financière boo xam ne lu ñu mën a teg loxo la lu wane ni mën nañ ko la preuve biñ biñ ko jotee gaawantu nañ jaay ko parce que c'est des spéculateurs noonu la ñuy def Frank Timis def na ko Grèce def na ko Sierra Leone c'est un spéculateur te ñoom xamoon nañ ko parce que Aly Ngouille Ndiaye bi muy bind naan euh, pétrotime société bu mag a mag la euh, bu am lii am moom xamoon nañ loolu amut jamono jooju ñu ngi koy jox Petrotim nga xam ne chinois chinois bi ñuy wax Eddie Wong moo ko moom mais ñëpp xam ñu Eddie Wong Frank Timis moo nekkoon ci gannaaw mais xamoon nañ ni Petro-Tim amul amul amul boobu amul capacité financière yooyu te musul def pétrole biñ ko koy jox ñoom xamoon nañ ñi donc la bind ci ci rapport de présentation bi dara du ci dëgg mais su dee daje nañu ak nit ci bureau waxtaan ak moom ñoo xam lu ñu jëflanteeg moom kooku dem jël rakku président dugal ci ci jamono jooju président bañoon na. ba am lu mu sant IGE parce que dénonciation amoon na ci diggante bi ñu jël Alioune dugal ko ci mu dellu si waat gaawantu xaatim décret yooyu kon loolu lu garaaw a garaaw la ba pare ñoo ñu wëlbatiku dem jaay suñu pétrole parce que musuñoo am yéene ni dañuy exploité am ci xaalis bu dul jeex ne mes lempo sax fayuñu ko ci loolu foofu la responsabilité Amadou Ba dugg ak waa direction générale des impôts et domaines parce que plus-value boobu kuy ku mus a jàng lempo rek xam nga dañ ci war a fay ñoom ñu bañ ne duñ ci fay dem ñooñ jël suñu xaalis ne mes dem seen kon yooyu su ma ci doon développé damay mun na def émission bi yëpp parce que yu garaaw garaaw la mais bind naa ci téere mu des nag mbirum total man musuma wax ni total manque à gagner bi nangam la dama ne gis naa ñenn ci presse bi ne waxtañoon waxtaan nañu ak ay techniciens ñu ne lii la waaye li am ba am waxtaan naag ñu jegewoon dossier bi ñu jegewoon dossier bi du ma tudd seen tur fii ci lañ ma wax mooy offre technique xam nga mbirum pétrole état bi lim ciy am loolu il faut que Sénégal yëpp xam ko su ñu nee am nañu pétrole fii su ñu tënkoo ci code code pétrolier bi te loolu noonu lay doxe ci àdduna yëpp état bi benn dina ci am des droits mooy lu ñu naan 10 pour cent 10 pour cent c'est les droits day mel ni ñu créé benn société de fait investisseur bi ñëw ne man jox leen ma bloc sangam. naa jël sama xaalis jël samay moyen su ma gisee wasalaam su ma gisul ñàkk na kooku état bi 10 pour cent lay am ci part yi bi am 90 pour cent te loolu jaadu na parce que état bi du jël benn risque ci jamono jooju bu ñu weesoo loolu nañ gis nañu pétrole kon pétrolier bi may na état bi mu yëkkati paaram ba 20 pour cent waaye état Sénégal mosu koo def mosu koo def droit boobu mu am jël ba 20 pour cent mosu koo def xam lu tax na deuxième bi état bi di am mooy dafa am lu ñuy wax une part de production soo gisee ñu ne contrat de recherche et de partage de production bu ñu commencé produire dafa am benn barème barème bi moo naan bu ñu commencé produire de zéro baril à mille baril état bi na ci vingt cinq pour cent entreprise bi am na ci soixante quinze pour cent de mille baril à soixante dix mille baril état bi am na ci nangam nangam nangam ba. fu ñu demee ba affaire bi di inversé wu loolu lañ ne nag comme code pétrolier bi da koo bàyyi da koo boyal ministre bi moo koy fixé nu mu ko neexee soo jëlee contrat yi da gis ci contrat bi tranche yi day nekk entre zéro vingt mille vingt mille trente vingt mille cinquante nga gis beneen contrat boo xam ne tranche day nekk entre zéro quarante mille quarante mille quatre vingt mille loolu dañ ko bàyyi ci loxo ministre bi muy muy premier musiba parce que en fonction dëgg investisseur bi ñëw ak ki ko andi ki ko introduire ak lu mu yor ci poosam la ñuy définir loolu barème yooyu nag moo baaxul parce que suñ nee offre technique su dee consortium Cosmos BP dafa ñëw jox benn tranche ne man de tranche yi laa joxe Total ñëw joxe yeneen tranche foofu di nga gis différence bi parce que su dee kii tranche am état bi day gaaw a am niveau de production boo xam ne dina nekk cinquante cinquante wala sax état bi nekk soixante kële nekk quarante kële moom offre am du gaaw a am loolu kon déjà di nga gis ni offre technique bi moo gën offre technique bële sans compter kenn ku nekk li nga ne moom ngay investir parce que sooy ñëw da ngay jël des engagements financiers dinaa forer tant de nombre de puits dinaa def tel ci li ñuy wax recherche sismique yooyu dañ koy jël boole ko pour mun a comparer les offres ñi xam dossier bi dëgg nag nee nañ total moo gënoon a yéesle ci offre moo gënoon a bonle ci offre par rapport ak ñeneen ñi mais président ma Sall la wax il faut ñu diversifier mooy il faut ñu compal français yi français yooyu nga xam ne gàddaayoon nañu Sénégal ba ne Sénégal kenn dootu fi gis pétrole parce que ñoom yàggoon nañ fi depuis temps copéol coptéol bi dox ba nekk Elf Total ak yeneen ak yeneen commencé woon nañ fi ñoom depuis 52. ba fay les années 78 ñu ne fii kenn du fi gis pétrole dem seen yoon kon su ñu demee ba gis pétrole Sénégal lii woon responsable attitude responsable état bi mooy dañu waroon njëkk a dëgg ne ah suñu code pétrolier bi de baaxul parce que biñ koy def dañ ko defoon sous le régime de l'incitation mooy nu ñuy def ba nit ñi nangu ñëw jël ay risques léegi nag weesu nañu risque gis nañ fi pétrole te soo seetee li ñu jox total ñoom xam nañ ni foofu am na jarul total du def recherche de parce que ñi ngi ko jox diggante Sangomar ak euh, Saint-Louis offshore diggante boobu fii gis nañ fi gaz fële gis nañ fi pétrole ci diggante boobu kon ñëpp xam nañ ni comme euh, même même même même même socle bi la ñëpp xam nañ ni fii am na pétrole total du sonn xam na ni foofu am na pétrole li ñu waroon njëkk def mooy benn dañu réformer suñu code pétrolier bi dégg naa 31 décembre président Macky Sall naan dinaa def concertation avec tous les segments ensuite proposer à l'Assemblée une réforme du code mais jaratu ko parce que signé na ay contrat yoo xam ne 45 ans la ñu engagé soo fi defee code bu bees teewul joxe na presque tous les 20 blocs ci 45 ans parce que su dee par exemple euh, concession c'est deux périodes c'est une période des périodes de dix ans renouvelables deux fois donc da ngay joxe. ci jamono ci période yoo xam ne dafa gudd ci jamono jooju ñooñu dañuy stabiliser dañu def li ñuy wax stabilisation seen contrat mooy li ñu signé fi mu ne nii kenn mënatu ci dellu gannaaw soo andi woon code bu bees ñu ne changé nañu régime fiscal bi changé nañu euh, paramètres yi pour barème bi ni ñuy séddalee et cetera loolu pour pour l'avenir mais ñii moom s'il commence à exploiter en 2019 c'est par rapport ak contrat yi Macky si kon bi ñu gisee pétrole bi la ñu waroon taxaw amuloo bu justifié parax paraxe bi ba joxe suñu pétrole yépp doog a ñëw taxawaat naan damay def ay concertation kon yooyu acte yu garaaw a la yoo xam ne régime Macky Sall def na ko te li mu yàqal senegal kenn xamul nu mu toll kenn mënul xayma nu mu toll li mu yàqal Sénégal te yemul ci pétrole bi nee naa la secteur yépp la mu des nag laaj bi nga laaj ci wàllu candidature euh, lu ñuy liggéey la defe naa euh, am nañu encore de la marge pour